Barthélémy Ngom mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm rafetlu seen ànd ak rajo Futur Media xibaar yi ñu dooree kook lu ñeel wàllum politique dialogue politique bi ñu nekk di amal fii ci mim réew di Sénégal Front de Résistance Nationale nee na bokkatu ca ba ba muy gis lu dal xelam FRN ne li mu gis daal euh, dafa indi xel ñaar xel mu tey ci ñoom majorité bi la ñuy ne day jaay dañuy jaay doole gannaaw ba nga xamante ni lank nañu ne élection locale yi ci atum 2022 la ñu koy amal fekk na ñoom waa FRN ak société civile yëpp dànqaloo ne leen jox leen ay firnde yu leer ne élection yi mën nañ ko amal euh, gën gaa yéex fii rek weeru décembre atum 2021 Mokhtar Sourang coordonnateur u FRN ci jokkoo beeg Alaaji Njogu Jéen consensus la ñuy waxtaan bu ñu waxtaanee xool lii war a nekk ñu mun ci jógoo waaye bu fekkee ni gis nañ ni dialogue moom ñoom leen arrange rek la ñuy def bu ñuy waxtaan aussi bu fekkee ni li ñuy wax ñoom kenn d'accord ci muy majorité bi ñoom du leen tere li ñu bëgg def la ñuy def bu boobaa dialogue amatul sens dialogue parce que élection ñun ñoo ko bokk règle yi ak euh, niñ ko war a doxale dañ ko war a waxtaane parce que bu élection jotee ñëppay dem bëri par conséquent ñëpp ci yem muy parti muy pouvoir muy opposition muy ku muy kujje politique alors euh, li xew mooy dañu waxtaane affaire élection ñun ñu jàpp ni ci at bii ñu ne mun nañ fi def élection locale ñu wane ko ci ay fànn yu leer wane ni évaluation wu processus électoral bi mun nañ ko def ci ñaari weer parce que administration bi mu ñëwee daf ñu wan ni fukki weer ak benn bu ñu defee procédure yëpp ci la ñu mën a organiser élection ñu wan leen ni évaluation bi mun nañ ko def ci ci ñaari weer au lieu de ñeent loolu opposition ànd ci noona la ñuy ànd ci société civile ñëpp ànd ci ba mu des seen nguur gi nguur gi nag mu mel ne ñoom dañu am leneen lu nekk seen bopp ci wàllu élection locale yi bu doon seen sago xëy na

mos di doxee nee na nag mbetteel la am gannaaw dogal gi nga xamante ni mu ngi tukkee ci waa FRN ñu teewlu ko. waa opposition bi dañuy politique rek quoi dañuy politique di waxantu di bëgg a tamit na xel xelu nit ñi ndaxte ñun ñëpp ñoo d' accord woon suñu réunion bi passé ndax que dañu war a dàq élection yi ñëpp d' accord ci. Parce que l'opposition a vu, nous avons dit que nous avons des fichiers électoraux, évaluer le processus électoral. Nous avons dit que nous allions des élections en décembre 2021. Nous avons déjà un agenda nous 11 mois. Donc, nous allons faire des élections en février ou mars 2021. nous avons dit que nous allions faire des élections bañ leen di tànn dañ leen wax ne ci ñetti weer ba ñeenti weer lañ war a def seen liggéey ñoom ñu bàyyi lépp ñi mooy tey te loolu boo ko laalee fu mu ne nii ñu ñëw ne la mais yéen ba ngeen ñuy jël da ngeen ñooxoon ñetti weer ba ñeenti weer parce que loolu lañ ñuy xañ maa lu ñu leen di fay donc ñun d' accord ñu ci li ngeen def euh, de manière unilatérale kon ñun tamit bàyyi nañu indi beneen problème. mais ñoom waa opposition waa FRN euh, nee nañu naam mën nañ ko dàq waaye gëm nañ ne techniquement élection locale war nañ ko mën a amal ci at mi di 2021.

Euh, buñu adopté texte bi ba nopi nak ci la njiitu rew mi di jël date bo xamante ci la ñuy amal euh, bobu lépp euh, élection partie prenante manam ñi nga xamante ño sék dialogue politique bi nag déggoowuñu ci dégg ngeen ñaari pàcc yi Moundiaye Cissé mi nga xamante ne mooy ONG 3D di sàkku ci njiitu rew mi rek Macky Sall ngir bu dee datit bu mu romb wéru janvier ñu tewlu ko mo nekkoon gan ak RFM matin tay amna occasion en or pour wan askan wi ne mom du top rek.

te dina gën a confiance. discours ethniciste discours communautariste agression contre démocratie euh, lu nañu dégg ko fi fan yi lan moo war a doon doxalinu état bi. gis nga waxu ethnie. ak waxu boddi xeet. état bi waru ko caaxaane. waru ko fowe. war na bu amee mu wane boppam bu baax. ba nga xamante ne bu jugee même ci côté ñu bokk ci nguur gi. mu wan leen ne du ma li du ko foye bu jugee feneen muy même opposition fu mu munti jugee l' waru ci caaxaan. daf ci war a ferme parce que bari na réew yu tàkk yoo xam ne looloo leen taal. dafa jot sax nag nguur gi teg fi benn genre commission boo xamante ne daf ciy teg. Euh, ñoo xam ne dañu am benn sagesse bi ñuy saytu pépp foo xamante ne am na euh, genre njort ñoo xam ne ñu ngi koy euh, jëmmalee ay affaire u boddi xeet mieux commission boo xam ne day def prévention lépp loo xam te maanaam di artu di sóoraale lu ñëwagul ci wàllum boddi xeet wala ci wàllum régionalisme communautarisme commission bu mel noonu moo ëpp commission yu bari ñu fi teg yoo xam ne amul njariñ day yokk budget mu nekkoon na Moundiaye Cissé njiital ONG 3D ma fàttali leen ko moo nekkoon ganuk RFM matin ci alxemes gile juróom ne si simili moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi juróom benn fukk liggéeykat yu société bii di Forteza eh, yóbbu nañu leen eh, chômage société boobu di yëngu ci wàllum gaz nee na nag attanatul charge mu yenu ci jamono jii lu ko gën a yokk di seen teen ga ca nga jaga nga xamante ni dafa lakk ba jeex waaye loole liggéeykat ñoom ne ñu mënul dugg seen i nopp wëlbatiku nañu daal di teg ci taabal bi anam yu métti yi nga xamante ni ñoom lañ fay liggéeyee Cheikh Anta liggéeykat yi nekk fii ci Forteza usine bi nga xamante ni fii la ñuy génne gaz bi nekk ci Ngadiaga te doon tàkk jamono yi yëpp ñoom de liggéeykat yi nee nañ dañ leen a yóbbu chômage technique di ko benn fan ci weeru avril jàpp fanweeri fan ci weeru septembre nee nañ ñoom li leen yéem dañoo xëy xëy rek génn ab note de service taf ko waaye woowuñu leen te joxuñu leen benn lettre liggéeykat yi sax nee nañ direction bi li nga xamante ne nag moom la ñu sukkandiku mooy nee nañ li ñu def dépensé dafa bari lool te tàkk-tàkkab gaz bi de tax na seen liggéey yu bëri dafa yàqu woon te dañoo am ay bor yu bëri ci banque yi loole la ñi nga xamante ñoom ñoo jiite liggéeykat yi biral waaye liggéeykat yi nekk fii ci teenab gaz bi nga xam ne moo doon tàkk nekk fii ci jëlëk pël Forteza nee nañ loolu de mënuñu koo gëm ndaxte usine bii de li muy génn ci gaz daanaka weer wi rek dinañ génn 600 000 mètres cube bu gaz bés bu nekk ñaar fukki junni mètre cube bu gaz dinañ ko génne ci usine bi liggéeykat yi nee nañ sonn nañu lool ci ay produit toxiques la ñuy liggéey waaye nag sàmmuñu benn yoon seen wér yaram ndaxte nee nañ amuñu couverture médical te it nee nañ ci atum 2017 lañ leen gëj a versé IPRES ñu fàttali nag teenub gaz bi doon tàkk ci Ngadiaga fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre 2020 la dooroon na ba tey jii de teenub gaz bi fay nañu ko RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop artisan ya ca Njàmbur ca Louga ñoom nag mer lool la ñu jëf ci jamono ji la ko waral ñu ne. fond force Covid 19 bi maanaam koppar yi ñu fi génnee woon di ko baaxee yenn ci ay secteurs ñoom da dañ leen ci beddi jotuñu ca dërëm loolaa tax ñu ne daal loole faw nguur gi defar ko ci nan ñu ne ci euh, cent 350 milliards yi nga xamante ni njiitu réew mi xibaar na ko ngir xeex ñàkkum xëy mi fii ci Sénégal ñoom nañu faw ñu jot seen wàll lu ko mooy rek lambaay dana ñaw démb lañ ko xamle cib ndaje gu nu seqoon ak taskatu xibaar yi Abraham Paul Pouy réseau des artisans bu Louga nag di yuuxu di laajte wàllam ci force Covid 19 ñu daje ci marché centrale bu Louga mam untu silla nag membre yu bokk ci réseau des artisans nag ñoom ñu ne jotaguñu cent cinquante mille yi nga xam ne président Macky Sall moo leen ko diggoon jëm ci mbas mi. Alé Thiam moo wax ci seen kàddu. am nañu amoon deuxième vague am na ci tam ñoo xam si amaat nañu deuxième fois mais ñuy samp de laaj le président de la république ni ko ñun wàllu ko dañ ci bokkul wala dañu cee boolewul wala boog dañ ñoo fàtte. ci nii nag réseau des artisans bu Louga di invité nguurub Sénégal mu fàttaliku bu baax secteuru artisanat jox ko wàllam ba mu mën sëkk ci 350 milliards ci suñu koppar yi nga xam ne président Macky Sall dina ko génnee ngir tàggat te wutal ndaw yi xëy. ah ay ndaw nag ma jàpp ni ku leen di dimbali. faaw nga dem ba si ñoom nga rencontre leen. ma jàpp ne liy dimbali ndaw ñi. nekkul si ay bureau nekkul si ay costume cravate. il faut ñu waa wut ay commission yoo xam dafay wàcc sur le terrain. xool leen seen i jafe-jafe. parce que des années et ñun ñi ngi dund ay jafe kon donc jàpp naa ne loolu war naa mën a jeex si mim réew. daje bi ñu amoon ngir wane seen mer nag ab occasion la woon pour artisan yi nag wax jafe-jafe yi nga xam ne seen secteur moo ngi koy dund ñiy woo sax seen ministre mu ubbi ay waxtaan. ak acteurs yi ngir ñu indi ay saafara ci jafe-jafe bu secteuru artisanan mu nekkoon Abraham Paul Puy Louga rajo Futur Média. ñu wey ci xibaar yi wax ci handicapé yi ñi nga xamante ni nañuy dañuy dund ak laago ñoom nag yëkkati nañu seen kàddu ñoom it na waa Bawol na waa Njàmbur def daal la ñu bëgg ñu defal leen maanaam koppar yi fi Macky Sall wax 350 milliards yi daal ñetti téeméer ak juróom fukki milliards yi mu ne dana ko génnee ngir xeex ñàkkum xëy bi fii ci Sénégal ñoom ñooñu di dundeek euh, euh, laago ñu ne daal faw ñu jox leen seen wàll ci euh, mbir moomu leen daal dana tax yalwaan gi wàññeeku ci mbedd réew mi. Eh, sàkku nañ it ñu amal moom njiitu réew mi woote ci nu mu gën a gaawee benn conseil présidentiel eh, jëm ci wàllum handicap su ko defee loi d'orientation bi ñu mën ko respecté ma Fall mooy seen njiit ñu teewlu ko kàddu yi mu dénk Abdouraham eh, Abdourahmane Diallo. handicapé yi jàpp ne ni ko président diggee woon wax dina ñu defal conseil présidentiel. ñu def conseil présidentiel. sur le handicap président de la république jiite ko ministère yor secteur yooyu ma la limal yëpp toog. handicapé yi toog bu ñu ko defalee situation bi moom dina mën a jox ndigal ministre yi pour que ministre bu nekk li nga war a def nga def ko pour loi boobu mën a taxaw loolu moo tax ñu wax ne war na am conseil présidentiel sur le handicap président wax ne dina génne lu trois toll 350 milliards jëmale ko ci xëyu ndaw ñi loolu am na solo trop ñun ñu ngi koy rafetlu waaye tam di fàttali ne ndaw ñooñu dafa am ay ndaw yoo xam ne tam ay handicapé lañ te boo xoolee mën nañ leen segg ci ñaari pàcc am na ci ñoo xam ne système d'exclusion bi ñu am tax na amuñu chance su dem école amuñu chance su def formation amuñu métier li ëpp ci li ñuy def mooy kon ñu dem yalwaani ci mbedd mi ñooñu fonds 350 milliards boobu war leen a jël en ñun ñu fexe ba génne ñooñu nekk ci mbedd mi encadré leen financé leen ay activités yoo xam ne activité génératrice de revenu lay doon delloo leen seen dignité bu nit ñi nga xam ne nag góorgóorlu nañ jàngi école ba am diplôme nga xam ne effort yu bari la ñu def pour mën a am diplôme ñooñu aussi pour gërëm seen effort yooyu yaakaar naa ne état bi warul sa hésiter dañu war a jël ñoom ñëpp recruter leen directement ñeneen ñi nag ñu encadré leen financé leen. mu nekkoon yaat Yatma Fall di président kuréel gi ëmb euh, ñiy dundeek laagu fii ci mim réew di Sénégal liggéeykat yu euh, centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru mu dib kuut ñoom nag ñu ngi ñaawlu euh, fitna wax fa yeew woon ci campus social ba fan yee ñu weesu ca université ba ñoom nag ñu ngi sàkku ci woy politique yi ñu ban toxal seen i kuréel partisan foofu le ca université ba. ñoom liggéeykat yooyu la ñu bëgg mooy ñu gën a dooleel kaaraange gi foofu le ca université ba tey ji la ñu ko xamle ci ndaje gu ñu seqoon ak taskatu xibaar yi Saliou Fall moom mooy coordonnateur intersyndical euh, bu ëmb liggéeykat ya ca université euh, centre des œuvres universitaires ñu teewlu ko kàddu yi mu dénk Oumou Kalsoum li Sénégal ñoo war a xam ni foo xamante ni cent mille personnes dañ fay yeewoo di fa añee di fa reeree di fa ndékkee foofu peut-être mënul ñàkk coow waaye ñuy xamal réew mi ak bitim réew que ni ñun liggéeykat yi coow bi ñu ngi fas yéene taxaw doon benn takku pour xeex ak xiiroo beeg ñaayoo bi am biir université mu dakk mu dakk loolu moom ñu ngi koy ñu ngi interpeller les autorités étatiques si sama biir français euh, texte bi maa ngi wax ni dafa am ñoo xamante ni dañ fiy dugal politique ba mu ëpp loolu ay la yéwén mooy dëgg ñun nag liggéeykat yi taluñ lan lu dul ñëw liggéey dem ñibbi xeex beeg xiiroo beeg ñaayoo bi dañ cee doyal maintenant nag li fi xewoon la fois dernière gën yok tax ñu ne ñun ño xam li xew fi université moy man damay ay ré damay japp buma togué di dégg ci journaux yi ñu naan ay xeexu waaso dafa am biir université man dama japp dama ne damay wax ñëpp ñu dégg ko xeexu waaso amul fi biir université 100000 étudiants fu ñuy yeewoo ñaari xalé joté bé séni xarit bé ñëpp ñoo jaar université loolu ku nekk féké nako di interpeller l'assemblée de l'université ñun travailleurs yi ñoom ñu jël ay mesures fermes à ce que ay étudiants yoo xamante ni damati nañ nag bay dugg ci xeex boo xamante ni xeex la boo xamante ni histoire bu du dakk la vraiment l' de l' université jël ay mesures par rapport à ça. mu nekkoon Salif euh, Fall di coordinateur intersyndical bu boot euh, liggéeykat yi ci centre des œuvres universitaires bu euh, ndakaru. xibaar bi ñu dab juróom-benni ndaw yu bokk ci alliance pour la république APR dañ leen convoqué woon tey ca commissariat central bu Kaolack waaye ba ñu leen dégloo ba noppi dal lañ leen bàyyiwaat ñu ñibbi la ko waral nag mooy seen ndaje gu ñu seqoon ak taskatu xibaar yi démb ca ndaje bombu démb la ñu yëkkatee kàddu ne daal du ñu ànd benn yoon responsable APR yu Kaolack dafa amal ab meeting boo xamante ne dañ fay dépenser ay million fekk Kaolack am na lu ko doy ba noppi ñoom li ñu war a def kay ñoom responsable APR ya ca Kaolack mooy ñu toppatoo xëyum ndaw ñi foofu foofule mu def xibaar boo xamante ni nag ñu ngi ko nangoo ci Ibrahima Diame eh, boobu le ñu namm ñoom waa APR fas ko yéene delloo njukkal njiitu réew mi ajjuma ëllëg lañu ko jàpp dem ca Bambey étudiants yu université Alioune Diop ñoom nag tàmbali nañu ni ci suba benn gréwu ñaari fan lu ñu bëgg ci nguur gi muy la mu leen waxoon daal nay engagement mu respecté ko euh, ba pare ñu mun a yeesalaat euh, anam ya ñuy jàngee ndax gis nañu ne daal problème yu bari la ñuy jànkoonteel ci seen université boobule Babacar Diouf. tey njàng ak njàngale amul ci université Alioune Diop bu Bambey loolu nag dinañ ko xàppati ci ñaari fan étudiants yi danoo bëgg a fàttali ñi nga xam ne ñoo leen jiite dige yi ñu leen defoon te ba fii yooyu ñu ci yàbbi Pape Ibrahima Sakho moom mooy jiite amical étudiants yi nekk ci économie économie juridique. avis boobu amoon na ay points yoo xam ne listé woon nañ ko ci. amphithéâtre euh, yoo xam ne ministre bi waxoon na dina ko euh, dina ko construire à partir du mois de janvier ensuite waxoon nañ ci restaurant bi ñu waroon tabax ici au niveau ci campus euh, ci campus 1. Mmh. ensuite waxoon nañ la réfection yeesalaat les locaux de la médecine. Master yi nga xamanteni defatuñ ko ci université Alioune Diop bu Bambey tamit nek na préoccupation bo xam ni na ndongo yi. laaj ko master yi lan moy euh, raison yu tax ñu arrêté ko mais batay question yu réponse yu ci am dara mo ci mo ci leeragul. loolu lepp taxna ñom leading am nañ yàqin ne di njàng ak mi dina fi soxé te sen qualité formation mën na ci am jafe jafé Wa lulu njeexital bu muy am moy dana xaw perturbé perturber enseignement bi parce que euh, social lo université bi indi nañ fi étudiant nombre bo xamné atunu ko soo euh, ay première année yo xamné dañuy def lu mat 800 900 euh, étudiants pour une capacité de de cinq étudiants l'eau day day metti so xeloo tamit ci walu social bi étudiant yi nu ñu nekkee nu ñuy dëkkee ak nu ci walu rang bi dafa dafa a dafa dafa métti. jéem nañoo directeur CROUS bu Bambey jéem nañ tamit directeur université bi wante ba fii mënuñu ci jot kenn. Birane ci téléphone Bombay RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf jërëjëf dellu siwaat fii ci Ndakaaru ca Kër Mbay Fall. Eh, nek ci banlieue bu ndakaaru fofu nak njabot yu bari sonu nañ ndax eh, eh, ndol bi ñu ci bëri ci ñom dal jafe-jafe bu nek la ñuy dund bés bu yalla sàkk ñenn ñi sax dem ba ñetti repas yi dal manam xey ndekki añ reer te na tax association Kurel gi ñu duppee dimbal Njabot jog dal di dajale ay denrées alimentaires ñam ak yeneen yu ko démé ngir rek dimbalé len ko Angèle ki nga xamanteni modi ndey Awa Badiane moy secrétaire général dimbal Njabot ñu tewlu ko kaddu yu mu denk Abdou Diouf Diagne bi ñu dooree association ndimbal njaboot ba léegi chaque mois de mars weeru jigéen ñi dañ koy feete comme association bi day dox ci social ak développement ñu ne événement bu ñëw rek dañuy ànd ak moom loolu moo waral tey bagage yi ñu dajale tey di ko indil fédération bu Kër Mbay faal te ñu séddale ko ñaari xaaj bi ñëw Kër Mbay Fall waaw lii ñuy séddale nag ñun dañ ne association ndimbal njaboot dañuy entre aider wu selon nos propres moyens selon boo ko gisee mooy suñuy cotisation dañuy def suñu bëccëg fukki dërëm bëccëg fukki yooyu moom la ñuy dajale di ko def ci suñuy kees mois de mars bu ñëwee ku ci nekk nga xool li nekk ci sa kees nga génnee ko ak li nga xam ne bonne volonté yi nga xam ne ñoo nekk ci sa gox am nañu ko ñu daal di koy boole dajale ko yaa xam eau de javel ngay indi yaa xam modaar ngay indi yaa xam ceeb ngay indi yaa xam diwlin ngay indi yaa xam lépp loo xam ne rek jigéen war na koo mën a soxla ci këram ak fameem rek nga indi ko rek loolu la ñuy dajale nous sommes plus de soixante-dix mille femmes au niveau national loolu nag la ñuy dajale ba mu doon benn loobu sakkan a sakkan a sakkan ñu daal di koy séddale suñuy nawle gisee ni ñun war nañoo mën a dimbalante ci suñu bopp comme amuñu ay partenaire te amuñu kees boo xam ne am nay milliards pour ñuy dem di ci tibb di dimbalante ñu ne nañu cotiser. mu nekkoon euh, ki nga xamante ni moo di euh, Ndeye Awa Badiane di secrétaire généralu association bi ñu duppee dimbal njaboot ñaar fukki simili moo boot ci benn waxtu. ak RFM kumpa jeex na. armée bi am na njiit lu bees général Cheikh Wade mooy semga bu bees bi ci suba la ko général Biram Diop mi à la traité jox lenge yi euh, ci ndaje gu nga xamante ni daal ñu ngi ko doon euh, amal ñu ànd ceeg Salimata Aw tek ab fleur bu mémorial souvenir ba wante itam xaatim livre d'or bi noonee tatagal gindon tatagal chef d'état-major des armées bu bees bi forces armées merci Sidiki Kaba di dalal xel bi di ko xamle ni ab que sous votre conduite les armées répondront, comme elles l'ont toujours fait, aux attentes légitimes de la nation qui a consenti des efforts financiers considérables pour doter ses forces des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Je vous assure de mon soutien total et de celui de tous mes collaborateurs afin d'atteindre le seul but qui vaille, la stabilité de notre pays, la sécurité de nos concitoyens et le développement de notre chef Sénégal. ressources humaines cette période où l'accès à la communication et à l'information s'est généralisé par le biais des réseaux sociaux j'exhorte tout particulièrement les militaires à faire preuve de tenue et de retenue dans leur usage et du devoir de réserve auquel tous les personnels sont assujettis en effet dans la pratique, il est fortement probable que le fil très tenu de conservation de défense du secret soit rompu et souvent de façon insoupçonnée. Général Cheikh Wade Yamoucha formation professionnelle Madame Tagat, itam En effet, il nous faudra poursuivre cette quête de qualité dans la formation de nos ressources humaines si nous voulons disposer d'un instrument de défense crédible et performant. L'entraînement physique militaire et sportif sera totalement redynamisé. ci li koy xaar nak général bi yok ci ni eh, képp kuy sol tenue dinañ leen gëna tassaré ci terrain bi ñu leen di gis loolee ngir gëna mëna ar askan bi te sàmmonteeg li nga xamante ni mooy waat gi ñu waat ak fañ leen di xaaree. Salimata Aw général Cheikh Wade mooy semga bu bees bi wuutu fa kii di général Birame Diop mi à jë traité à la traité jëm nañu gëstu nag ba xam ana li tax ñoom semga yi du ñuy faral daal di yàgg ci seen i boobu boobule dafa mel ni ku ñu fa fal rek euh, ñett jàpp ñeenti at nga à la traité ci ànd ak Koumba Sandiane Faye ci ñaareelu pàccu xibaar yi jëwrin gi yore wàllum dëkkuwaay di Abdoulaye Seydou Sow tey ji ci suba la doon. Euh, Euh, amal lancement ou le bi nga xamanteni ñu ngi ci jëm ci tabax 300 euh, logements fele ci Kébémer mu ñel nak euh, programme cent mille logements yi nga logements sociaux yi nga xamanteni nguur gi mom la ci lolu sax secrétaire général bi nga xamanteni mo yoré walum wàllum yi di Victorine xam xamle na né ñaari téeméeri kër dal tabax nañu tabax nañu ni ko ci émission Grand Jury ci RFM ci wéru février gële wésu la euh, Mom nak euh, secrétaire d'état le dal dina le ne sen objectif modi. Euh, d'al, at bu nek ñu tabax ba mu yemb ba ñu livrer len livrer len lu tollu logement Victorine ci ci président Macky Sall daf ñu liggéey en mode fast track ñu ne woon fii au plus tard le 31 mars dinañu gis ni tabax bi tàmbale na tabax bi tàmbale na fondation yi dina jóg te tey kontaan nañ torop mën a dellu si ne dañ ko waxee woon noonu la demee kër yaa ngi tàmbale am na yu nekk ci ay niveau yu différent te lu ma ci mën a wax sax mooy maison témoin ku dem tey visiter di ko gis foofu la ñu toll. kër yooyu ñu tàmbale tabax euh, fañ la ñu nekk ak ci ñaata la toll. site ba ma nga Bambilor dinañu organiser du yàgg dara administre bi ñu def visite invité presse bi ñu nous avons xam ni projet 100 000 logements tambalé na té ni ngui koy waxee gis bokku ci promoteur bi convention bi ñu signé 2000 logements la wara a livré ñu signé convention bi février moy weer bi passé le tambalé té tey ci engagement yi mu jëloon février dafa né day tambalé ak 200 ci 200 yoyu lu ëpp 150 fondations yi génn na ba ñu ngi ci ay élévation yeneen yi tëj nañ ba am na logement témoin bu pare bu ñu meublé ku dem gis fofu lañ tollagoo xam nañ nak ni besoin bi li ñu mbirum sas muy 20 logements par an nam defaguñ ci lu bari ndax ñu ngi soog a ni ko convention bu njëkk bi février lañ ko signé waaye ñu am content rek ni tàmbale nañu te niñ koy waxee limbo gis rek lay Victorine euh, secrétaire d'État bi ñu dénk wàllum euh, dëkkuwaay wax ci leneen ci euh, wàllum diine fête pak yi ci week-end bii week-end di ñëw chrétien yi ñu ci Euh, li ñuy wax euh, tridème pascal bi ni ki tey ji ci alxames bi lañu ko tàmbali fas ko yéene wéyal ba euh, samedi paak nag bi ñu ko waxee xel yëpp dem ci ngalax aaday réew mi la waaye aada boobule boo moytuwul njaboot yu bari ca Ziguinchor duñu ko duñu ko amal ci atum ren jile feebar bi di mbas mi daal moo ñëw lottal njaboot yu bari leeral yeeg Lamine Ba ñoo ngi joti leen quartier bu xumb la bi nekk fi ci commune bu Ziguinchor waaye xumbute bi nga xam ne moom la ñu ci tali yi wute nag li nga xam ne moom fekk ci biiru njabootu kasoka ci biir njaboot ji liñ fi doon seetlu saa su nga lax yegsee gisuñ ko fa ren ji li ko waral mooy soxna si ne ren defarul nga lax ndax ndax jafe-jafe nga xam ne fekk na ko ci ana sambu lay wuyoo ma furaatu nii du ma lekk aw ma yaakaaru kenn ma dëgg yàlla aw ma njógoon nga lax ma nekk ni dërëm bu ma nee damay jënd jerte mbaa ma ñëw jënd buy mbaa ma jënd dugg aw ma ko wax dëgg yàlla rien ah métti na bu baax ci man nag wax dëgg yàlla. ci biir quartier boobee ba léegi njaboot yi nga xam ne ay catholique lañu bëri nañu ñi nga xam ne ñoo fa dëkkee ñu joxoon ñu njabootu Mendy foofay cosaanoo nañu joxe nga lax saa su vendredi saint jotee waaye ren jii duñ ko mën a def bu ñu sukkandikoo ci kàddu borom njaboot ji dugal Mendy. liggéey bi doxul corona bi bloqué na presque lépp man ouvrier la entrepreneur la. ba fi ngay defaree ngalax bi dafay métti bokk na ci li gën yokk coono mi mooy ne ñi ko yoral bor dañoo bëri kenn fayu ko su demee coronavirus lañ koy wax motax du mëna jot ci xaalisam. da ngay liggéey ay nit sax duñ la fay bo waxee ni la corona lool nak fi nga wara gëné génnee xaalis bi ngay defal yi mel non xam nga da fay metti ko fi liggéeyal tam corona la lay war rek dégg xaalis baa ngi noonu boo amul xaalis nak nga la napp bi fu nga am xaalis nga def ko ñu ci dara dara lañ ci amul crise bi daanaka fepp la la njaboot amul benn bi nga xamné bayyi nako mu ngi melni ki di Régina sambu momit ciono bi ni mel la netti dëgg dëgg bu gëna def nga la waye loxo bi jotul dëgg la dëkkandoor yi chaque fête dañuy yékkal kon nak ñun té war nañu def ñu jox la corona bi moo tax kenn deful naa dëkkandoor yi ñu baal ma rek. Ziguinchor nag ren njaboot yi nga xam ne dinañ amal nga lax gi ñu bëri ndax coronavirus bi nga xam ne jaar na fii Lamine Ba Ziguinchor Rajo Futurs Médias. Lamine Ba nga lax moom ku ne xam na ne la mu laaj dafa bëri loolaa tax mu cher euh, Aliou Ba mi toog fale moom nee na ndegam amul woon daaw bu ren moom bu daaw beeg bu ren bi yëpp laay dajale jox ko. <laughs> RFM bitim réew. Georges ñu ngi lay nuyu. man en tout cas na mooy gi. ah bëree moom. Ah, man de mosuma xam ne ngalax day am rappel rappelu daaw ngalaxu daaw bi. <laughs> maa ngi lay fay Barthélémy. jërëjëf Georges xibaar yi ñu dem ca biti réew gannaaw coup d'état gën fa nasoon ba tey ñu ngay wéyal enquête ba ba xam lan la lu ca gannaaw. gan gën kaa tuuti fukki militaire ak euh, juróom teg nañ leen loxo ñu ne sax euh, nangu nañ ni euh, ñu ngi doon jëfe ci kadduy capitaine Gourouza mi nga xamante ne jamono ji réer ndax dafa daw moom la ñuy gën a wër euh, ci biir Niger jamono ji nag service de renseignement yi yëpp dugal nañ leen ca ngir ñu teg ko loxo jàpp leen ni itam euh, ëllëg ajjuma la ka ñu fa fal njiitu rew di Mohamed Bazoum di euh, prêter serment dem ba ca Côte d'Ivoire fofu gannaaw bi ñu acquitté waté wala bok gannaaw bi cour d'appel bu cour pénal euh, chambre d'appel bu cour pénal international euh, dëgalee acquittement bu Laurent Bagbo, ak ki nga xamantene modi di Charles Blé Goudé ca yopugon fi nga xamantene nak mom moy fief bu président bu Côte d'Ivoire ba won contenté mo fa am démboog tay yëpp ñoo ngay fecc ak way ngir rafetlu acquittement bu Laurent Bagbo Bobé. ñu né nak fi mu fi mu nekk nii ñu ngi koy xaar mu ñibbisiwaat ci réew mi. Barça wala Barsaq am na ay migrants yu bari yoo nga xamante ne teg nañu leen loxo ca waaxu Libya. téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti migrants lañ nekkoon ci ab euh, gaal ñoom ñëpp nag dañu bëggoon a dem euh, tugal maanaam euh, Europe bokk ci ñoom juróom-ñeenti jigéen ak ñetti gone xaaj gi nag ñu ne ñu ngi jógee ca Soudan ñu ngi leen intercepté nag. Euh, euh, àllarba maanaam démbu garde côte libyen yi ñoo def lu ni mel ña ca des nag euh, ñu ngi jógee ci yeneen réewu Afrique yi altine gi ñu weesu organisation internationale pour les migrations di OIM dafa newoon ni garde côte yu Libye intercepté nañ lu jege junniy euh, migrants yi nga xamante ne dañ bëggoon a dem euh, Europe euh, te ci côte occidentale bu libi lañ leen jàppee diirug ñaari fan côte dem addu ci li nga xamante ne moo di Covid 19 jamono ji nga xamante ne Madagascar adhéré na ci initiative Covix ca Canada moom dëkk yi di Québec Lévis ak Gatineau ñoom delluwaat nañ ca couvre-feu l'école ya ñu tëj leen naka noonu yenn bërëb yi ñuy jaayee Mamadou Aïcha Ndiaye. saa wu ñu demee ba yaakaar ne mbas mi jeex na rek fii ci kanadaa ak Québec mbir mi gën a wulee ñaay démb nag François Legault di premier ministre province bi yëkkati na ay dogal wax ne fi ñu toll ni dañuy dakkal li tàmbalee ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars ba fukki fan ak ñaar ci weeru abril lu bëri dañ koy tëj François Legault vous annonce qu'étant donné que la situation est critique, il faut agir rapidement avant qu'il y ait un impact trop grand sur les hospitalisations, qu'à compter de demain 20 heures, à Québec, Lévis et Gatineau, on va euh, mettre ces euh, sous-régions sur pause pour une période d'une dizaine de jours, donc jusqu'au lundi 12 avril. François Legault yëgal né amna ci lo xamné li dañ koy tej mo xam yenn boutique yi yenn gymnastes yi yenn école yi xalé yi tok ci kër gi ak li nga xamné ki dañ ko yëkëti ci pay joxé ko ci yenn barab yi. dire concrètement qu'on va fermer comme on l'avait fait euh, au début janvier les commerces non essentiels les écoles cinéma théâtre musée salon coiffeur gym et autres. Évidemment, je le disais, on va remettre en place euh, les programmes d'aide financière. ki doon jokkoo ak yéen ci Québec Mamadou Aïcha Radio rajo Futur Média. mu ngoog foofee la ñuy yemale xibaar bi ci Barthélémy Ngom. Cheikh Tidiane Diagne jërëjëf Georges Déthié Diop Cheikh Tidiane del xaar ba sa heure jot nga doog a dugg si si ci jow bi. RFM Sport. Diagne no def. maa ngi sant yàlla ba xaar ba sa waxtu jot nga doog a dugg si ginnaaw boo ñëwee daal perturbe bi ñëpp anglais yi ma doon làkk ak George laa ne <laughs> yaa ngi retaata xamoon lan la ñu ndax déggoo ko eh, eh, wóor na la ah jëm ci jëm dara ba xam acca <laughs> tàggat yaram la ñu koy tàmbalee euh, tey jii ci ngoon la ñuy tàmbali hmm. euh, premier tour euh, coupe de la ligue waaw mu ngi noonu danañ ko daal di door ci bu 15h30 jotee ci stade Lat bu Thiès foofu nag ñaari jongante moo fay daal di am bu njëkk diggante Africa Promo Foot ak Dakar Sacré-Cœur ba ca dess 18h30 diggante Snaps Excellence bu Thiès ak Génération Foot ci stade Lamine Gueye bu Kaolack fofu genn jongante mo fay daldi am 16h30 diggante Mbour Petite Côte ak Guédiawaye Football Club fofu le Mbour Petite Côte di recevoir jamono gi ay équipe ay équipe yi stade Ibrahima Boy fofu 16h30 tey Renaissance bu Dakar lay daldi don ak ñi di waa AS stade Alassane Djigo bu Pikine foofu 16h30 ci port ak union sportive bu Wakam la euh, match yi yeggali euh, euh, di premier tour bu coupe de la ligue

dañ si ànd ak Youssouf Bodian mi nga xamante ni démb dal na assister séance d' entraînement bu jaraaf bu Dakar. ay joueurs yu njaxlaf ànd xadar lool ci séance bi nga xamante ni mu ngi amee ci teewaayu entraîneur bi di Cheikh Gueye. xam nga équipe bu fekkee da nga jóge si benn victoire ak benn nul xam na benn dynamisme boo xam ne confiance boo xam tey am ci xale yi ba nga xamante ni xale yi ni ñu war a préparer match bi ñu ko koy préparer pour mën a am ndam si diggante équipe bi nga xam moom mooy Saritas ndaxte si groupe bi ñeenti équipe la te ñun rek ñoo xamante ni ñoo des si am victoire kon pour mën a exister groupe bi il faut ñu gagner dimanche inshallah mbébé toujours joueur jaraaf yi daan Saritas FC ngir daal di des ci course bi suñu sukkandikoo ci défenseur bi di Babacar Seck. ñu ngi préparé bu baax parce que ñu ngi ñuy ñaax ñu ngi entraîner ñu ngi def li nga xamantene tay tey jii nii ñu wara yobu ci si match boobu noonu pour ñu mën ko gagner quoi. togo nañ ben moment bo xamantene gagné wuñu mu xawon metti trop mais football day am au day am ay baax. xaar boobu noonu permettre nañu aussi tamit xam groupe bi soufflé donc euh, pour ñu mën a nekkaat dans le bain pour nga xamantene match bi di ñëw ñu mën ci dugg quoi bu baax pour gagner quoi gardien bi di Pape Seydou Ndiaye ak madike Kane yi nekkon ci sélection bu Sénégal waat nañu kon daanaka groupe jaraaf bi mat na ci kaddu entraîneur bi di Cheikh Gueye. groupe bi à part bi nga xamante ni dafa am sanction moom du mën a fubal mais comme ni ma koy waxee rek euh, joueurs yi ñëpp am solo mais tamit ku génn rek sa morom mën na dugg keroog CNEPS gagné nañ CNEPS sans Pape Seydou ak ki nga xam mooy Madické kon si war nañ mën a gagné ñii di Salitas sans Sega Sega dafa gaañu dina am beneen xale boo xamante ni dina ko mën a remplacer. dugal saison bi passé dooraat na entraînement yi ginnaaw gaañu gaañu bu mu amoon entraîneur bu jaraaf am jortu ne ki fi nekkoon dugaar ci groupe bi euh, fii ak njeextalu weeru avril. Youssouf Bodian ñu daal di dem ca Diourbel foofu nag ñi nga xam te ñoom ñooy yëngu ci wàllu football dañoo daal di joxañ baaraamu tuuma lii di président euh, ligue régionale bu football bi ndax dañoo gis ni daal moom anam yi nga xamante ne moom lay gérer ligue googule toogul euh, maanaam teguwul ci yoon loolu nag di kaddu Bàcc Soog moom yi nga xam te moom moo di président bu zone 3 bu ODCAV bu Mbacké ñu déglu ko ci micro Marema Diop. dama bëggoon a alerter monsieur Abdoulaye Fall ci doxalina ci doxalinu par parloo ñi ànd ak moom ñoo ko mën a jot téléphone ku àndut ak moom mënu ko jot téléphone loolu mënul nekk ñu ko ak sëtu Elimanel Fall la Abdoulaye falu ñu la parce que surtout Samba Lawbe nga dañ laa fal parce que dañoo amoon ci yow confiance boo ñu doon wan ñu am ci yow yaakaar njàmbaar gi ñu yaakaaroon ci yow wax dëgg yàlla gisaguñ ko ndax suñu football ba tey fa mu nekkoon fa la nekk ba tey amul benn ci ci région bi ab stade bu mën a bu gone yi mën a football boo xam ne yenu na maanaa du Mbàkke du Bambey du Jurbel booy jàppale sax ay arbitre ngay jàppale bàyyi ndaw ñi nga xam ne war nga leen defal ay management ak leneen ak leneen pour ñu mën a nekk ay agent joueur wala lekk doomi Jurbel nga téléphone wax ak ñëpp dañ laa fal pour nga yëkkati footballu Jurbel mais bi nga fi nekkee ba léegi football bi dafa gën a daanu loolu mooy li am. mi ngi noonu jëm nañoo jokkook euh, kii di euh, président bu ligue régionale bu euh, Diourbel waaye yëf yi mujjuta antu na jàpp ni lii di antenne RFM ubbil nañ ko ko ngir mu daal di indi ab leeral ci tuuma yi nga xamante ni dal nañ ko tek ci ndodam Barcelone xam nga coupe d'afrique bi waraloon éliminatoire yi barki demb mhm. coupe d'afrique 2021 la mais dañ ko toxaloon ba 2022 ca Cameroun lay amé mhm, lu war xam nga lu tax ñu waroon ñukki woon ko ñu dal di ko reporter mhm. moo di Cameroun infrastructure yi nga xam moom la naroon tabax ngir mën a dal yooyu la compétition moom matul woon parewul voilà ñu dal di ko kon bokk repousser ba 2022 waaye appellation normale mooy coupe d'afrique des kan 2021 waaw voilà euh, léegi nak euh, app bañ koy amal leer na xam nañu ko waaw xam nañ ko euh, dinañ ko dal di door juróom ñeenti fan ci weeru janvier jàpp juróom-benn fan ci weeru février ci atum 2022 foofu la ca Cameroun euh, lii di euh, confédération africaine bu football moom moo daal di wax lu ni mel ci bataaxal ba mu daal di kon bokk génnee tey jii euh, jàpp leen nag ci di jëm nag ci tirage au sort googule coupe d'Afrique ca Cameroun danañ ko daal di amal 25 juin su boobaa nag Sénégal dana xam ñan lay tasal. Mhm. ok ñuy xaarandi ba xam yan équipe lay doon Cheikh Tidiane Diagne jërëjëf. jaajëf. ak RFM kumpa jeex na.

liñu sétlu boy booy ñi tab ci poste bobé duñ fa yag lool na nak at yu mujj yi ndax bu yag ba di général de division Alfred Diallo 1960 1972 def na fukki at ci bop Semga général Idrissa Fall 72 84 fukk ak ñaari at Mansour Seck ñëw def juromi at 88 93 Bouesso ñoo ñooñee ñi ci top mo xam Lamine Keita Lamine Cissé Babacar Gaye Pape Khalilou Fall Abdoulaye Fall Mamadou Seck Cheikh Gueye ba kii ci mujj général Birame Diop ñoom ñëpp booy xool benn at ñaar ba ñett lu mu yàgg-yàgg la ñuy def ci bopp Semga colonel de gendarmerie à la retraite doon it juriste Sankhoun Faty li mu gis moy nek ci bopp Semga ap luñ ko ñi mujjee ñi mujjee euh, defuñu ëpp ñu ñaari at lool mun nañ ko wax parce que ñiko jitu jiitu yëpp euh, def na am na ñoo ko xam dem nañ be fukki at donc amul app bo xam ni euh, nañ wax ni mo gën tuuti wala mo gën a donc ça dépend wante na am ab ci critère ngir ab général ñu tab ko ci poste Semga colonel seet loom li la ko may bu nekk chef d'état major général des armées général bo xamni mo moo yak ci grade grade bo xamni mo moo kawé mom moy mom moy mom mom moom moom moom donc président de la république euh, ci kaw loolu lay sukkandiku xam nga ni avancement armée dañuy def ci souf be ci kaw dañuy def notation dañ leen noté yow sa liggéey numéro ba nga avancer di avancer di avancé ba nga égué colonel pour nek général kooku puisque euh, président moy nommé ci loolu dañuy dañuy def ay proposition légui président de la république moy moy moy moy sept critères yow lay xol

des cadres de l'état-major euh, général de euh, l'armée. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal, CCPS, Sengam Opalia, Savon de Marseille Créole, à Kabirex, Nyolini may libération xëy demal ñu tey ca ngajaga ngajaga di fa teenab gaz bi ne woon jëppet tàkkab diir bu yàgg laata ñu koy soog a fay di teenu gaz bu kërug liggéeykaay gi di Forteza Forteza moomee nag waa ngajaga gërëm munu ko dem nañu sax ba joxoñ ko ci ne la mu bëgg mooy toxale leen fa nu sance yamunu rek ca suuf sa nga xamante ni fa la nu ne ci nettali ci libération soxna suñ naan ay Aysatu Saw moom mu ne ba borom këram làqoog léegi dañ koy yëkkatee fa mu dëkkoon ndax dalal direction Forteza Gallo Ndiaye moom gis ne Forteza yamul ci suuf sa mu rek waaye dëkk ba ci boppam la yootu jumaa ja sax ñu ne bu nu sañoon ñu toxal ko fa ndax jumaa ja daa toog ci teenub gaz mbay gajaga ne tool ba mu donnoo ca bàyyi ji moom la ñu nangoo ci moom Moussa gajaga mel ni ku naan waaye gisuñu dara seen àq dal na leen ñoom Forteza ndax teen bi xamuñu sax lu ko taal ci gis-gisam moom mbay gajaga jinne yi ci boppam ñoo taal teen ba boo boobépp yaakaar nag bu tas ci waa gajaga yàlla bu mu dal Sénégal ci samxal gaz bi war a togg courant bi ca nu teg xeer bu njëkk ba démb ca Cap des Biches ak xewu rëy yaakaar gu rëy naka noonu ci wàllum kaay bi di laas ne privé national bi maanaam boromi koppar yu fekk baax fii ci réew mi ñoo ànd dugal ci seeni koppar Arona Dia Cala Abdoulaye Dia Seniko Khadim Ba Samuel Sarr Sud Quotidien ne centrale bi ñetti téeméeri mégawatt lay togg ci courant ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaari milliards moo ca dem Sénégal di dalloo tey ak dalal nag njiit lu bees bu l'armée nationale am nouveau CMGA général Cheikh Wade observateur gëstu démbam ay jaar-jaaram fa mu fekk baax ca ngaay mexe ba ciy seede yu ko waajuram bu jigéen defal ni ku naan coowal Ousmane Sonko Adji Sarr fay na de waaye feu naka noonu fay nañu fépp ci ndakaaru ak wuyu yi nga xamante ni ci jamonoy manifesté yi ñoo ko yàqoon ya xeet yàqu-yàqu yi nag yéene kaay bu groupe Futurs Médias ne xayma nanu ko ci ñetti téeméer ak juróom fukki million li gën a métti du yàqu-yàqu ci wàllu matériel waaye bakkani ci rot les échos ne Amnesty fas na yéene nag topp mbiri ci yoon am Amnesty mi xayma paatu gi ci fukk ak ñaar ñeenti téeméer ñu ami gaañu-gaañu Amnesty jël fukki avocat ngir fayal njaboot yi bëgg a mbir mi ci yoon njaboot yoo xamante ni ñoom danoo faf ba lépp ak yàlla dañu des ak les échos ak loi bi ñeel toxalug wote local yi jàll na ne bataaxal ñu ne ci poste démb ci assemblée nationale ne kaay bi ne lu ëpp fanweeri député teewun fa woon de ci projet de loi bu ni amee solo kàngami opposition bi ñii teewunu ña teewoon mu ne mel ni muuma ci ne kaay bi di la man mandat Barthélémy Dias moom di ci wax xalaatam ci li waral président Macky Sall di guddal ak jël mu ne ci mbir yi bëggul amal élection yi Barthélémy ne bëgg a desab diir nguur gi rek ndax xam na ne bu nu demoon tey tey local wërsëgam du bari source a moom tey bël ba yi ak liggéey yi soxal bël boobee yéene kaay bi ne président Macky Sall woon ci njëlbeen ci li nga xamante ne mooy ak tàmbali ñeel liggéey bi lu may danoo def étude yu wér maanaam jàngat yoon yi nga xamante ni fa lañ war a jaarale liggéey bi laata ñuy sumb bépp liggéey Cheikh Issa Sall directeur général ADM ne waaw position bi gën a màndu gën a am solo mooy bu président de la république ca nag mu ne ñoom waa ADM sax bëggunu woon defab liggéey boo xamante ni ay njuumte da cay lalu ñu baaxee ko nguur gu Sénégal liggéey bu wéeruwul ci xam-xam moom président Macky Sall bëgg it ay yeesal tasam xibaar ci réew mi ci la tribune ma nga ca naan nanu baral jéego yi ñeel li nga xamante ni mooy yeesal ni ko code de la presse moole méngal it ak jamono yori nu kër xibaar yi wékku ci nguur gi naka noonu it daal di tëggaat loi bi ci wàllum publicité président de la république ci le soleil yittewoo su weesoo presse bi wàllu napp mi yéene kaay bu àdne dina ci jiiteem ndaje di conseil présidentiel ci weeru mai wàllu wér yaram l'hôpital la Dantec soxla lool ak taxawu la témoin ne moo waral nguur gi baaxee ko juróomi téeméeri million ngir mu ximmaliku ndax l'hôpital ci dool it koppar yi fa daa dugg di recette yi wàññiku lool ak i chantier fune ca dara yeggagu ca wér yaram gi ci la des ba tey ak doomu jàngoro bi di corona enquête fësale nataalu professeur Didier Raoult yéene kaay bi ne moog naatangoom bu Sénégal professeur Souleymane Boub seeni gëstoog liggéey yëpp jamono yi mooy fexe xam fu variant yu bees yi ci Sénégal soqi ko variant yi di melokaan yeneen yi virus bi jël professeur Raoul cib ngan ci Sénégal rafetluwul nag moom na France di xeexee coronavirus ca loolee Vox Populi né. président ba ci boppam Emmanuel Macron mel ni ku koy dëggal ndax moom ci boppam nangu na ne yëf yi des na ba tax mu tëjaat waa France ci confinement diirëb ñeenti ayu bés yeneen di weer le quotidien moom xëyee diggante bu ratax lool lalu ci taarix ak démb muy bu Gambeek Sénégal waaye mel ni fan yi cat da caa dugg ba yi faf gëmm lu ci mën di am ambassadeur Sénégal ba ci Banjul Bassirou sen mu ngi xamal ñaari askan yi ne pexe beneen amul lu may ñu manam maanaam kenn mënta dem ba sa wàllu sport équipe nationale football beeg Aliou Cissé wéy di doon coow li ci observateur Ferdinand Coly moom la mu gis mooy nag naam mëne su lànkal Aliou liggéeyam ak résultat am waaye nag ab diire ngi mu ne équipe nationale saful géej saful yéet duy occasion yu ñu créé du football bu tar ca rafet lépp a gëmm mu ne Ferdinand Coly ne wóor na ko ñu jiite équipe bi seen bopp sax suñu wéetee nangu ne yëf daal gëmm faw kon mu ne ñu yokk xereñ gi dem jëli coupe bi ndax loolu rek mooy objectifu Sénégal joueur itam Ferdinand Coly jox leen seen wàll ndax mu ne waruñu xëpp lépp Aliou Cissé ñoom ci seen wàllu bopp bu a a yooyu résultat lépp a baax waaye football bi ci boppam moo saful dara stade yéenekaay dafa laaj ni ndax manees naa compter ci Aliou Cissé ngir gagner Coupe d'Afrique